noo jógee ci tournoi bi ba ma jógee ci si à tournoi bi. gars yi di préparer saison buy bële passé. Mhm. dafa xatoon parce que dafa tombé woon nag élection weeru koor tombé yenn affaire yoo xamante ni. bëriwoo waaw bëriwuñ ci. Mhm. bii tamit ñu ñu préparé ko ba ma war a bëri le 4 avril. ci biir ci biir kii bi. bu combat bi desee ay 15 jours 20 jours. Covid 19 bi dugg si. muy sa combat Codou Faye. waaw mooy mbas parce que yow ña nga war a bëri bëri woo ñoom. bëreeg Coly Faye ñu bari dañu ne lan lay apporter. Coly euh, kan moo gën a nekk champion ci làmb champion la mais yow mais gars yi nañu instant bi yow da xamul foo jëm moo tax nga ñëw ci ñooñu. waaw mais xam nga tamit waaw ba tey mën na nekk ba tey mën na nekk su fekkee xamoo foo jëm mais heureusement génnuma mbëgg suukar bi génnul saaku suukar bi parce que maa ngi ci biir làmb ji su fekkoon tey damaa dem ci saako xorom comme tey damaa dem ci football bi wala ma dem ci rugby bi dinañ ne gêné génn na làmb ji mais ba tey maa ngi ci biir làmb ji parce que Coly Faye champion la mbër la. kon retard bi yow wan nga ne kon xam nga nit ñi ko gisee ñu ngi ko commencé gisee ci mbër bi nga xam dafa ñëw tey rek bëri mbër yi ñu ne kooku dafa avancé fekk kooku. mais su su fekkee kii daan di daan daan kon Brésil xanaa kon moom mooy pay ci làmb Brésil xool ko li mu def ci làmb daan moroom moom yi daan moo victoire ci làmb dafa avancé wala dafa retard. ndax bëri non xew ak ak ah. avancé ak retard du benn. Ah, moom kat retard na ah. fan la retard Brésil. heure bi waroon na koo fekk ko mag benn. ah mais Brésil nag yàgg na de. waaw mais noonu la yàgg boobu nag la ñuy ñaan ci làmb. Mm. làmb yàgg la. mais pourquoi Coulissé Bombardier Gris Bordeaux la moo tax ñoom ñu téye làmb Eumeu seen mais pourquoi nekk mu ngi ci 22 ans. mais li fa de. ah mais Coulissé nangu Coulissé bëgg. ñeneen ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi xool keneen ku ñu bëre da nga leen respecté ci seen décision. mais dafa am ay rang boo xamante ne mu gënoon comme comme comme dafa am rang boo xamante ne instant bi ay ñoom double moteur xam nga ay ñoom mujja ay am na yeneen ay booy kon booy. ba tey ñi ñoom armé ñoom. ba tey nga teggi. ba tey ñi nga yoon noonu ñëpp ay champion la. mais mais nga ñëw di jël kii. Coly Faye kon du champion. non bu mag. mais champion bu mag alhamdulilah. <laughs> alhamdulilah. ah léegi jël ko de. ma jël ko fay de léegi ñun ñu jub combat bi combat bi des ay vingt jours. Mhm. mbas bi dugg ci réew mi. Mhm. léegi nag gars yi arrêté activité yi nga xamante ni yëpp. Mhm. dafay dox. boobu bokk ci. parce que tey boobu mën naa ne moo ci gën a tuuti sama combat qualifié yi li si li ñu arrêté. ci gën a tuuti. si adduna bi li ñu fi arrêté lépp. sama combat qualifié xam nga qualifié. waaw champion bu mag nekk koo xamante ni naanaan la. ma gis ko ci communication am gis ko ci comportement am gis ko ci ñi muy ñëwee jox làmb li mu moom parce que tey bis bu ñëwee dafay bëri day dox sa kaw bëreeg yow jaxasoo yow am ndam ñibbi noonu la def mbër yi ma seetaan yëpp ah. donc ñoom kërti kërti ak ñoom daan leen ñibbi kooku nag champion la. ñu gis ne xeexkat nga woon. yow sa combat da nga daan dafa jotoon rek xam nga nit ñi dañu naan xeexkat la. Euh, mais gis nga gars yi ñoo boobu. xeexkat la bi la. waaw yooyu tamit dafay joué xam bis booy màgg da ngay nekk grand mbër bi nga xam da ko war a dóor dóor dóor daan ñëw rek daan ko mbër bi nga xamante ni da da ko war a jaxasoo moom ci beneen anam daan ko daan ko parce que vee lañ la laaj làmb ji cooli cooli cooli ku daan lañuy laaj ñun ñu fexe na ba fexe xam ni ñuy daane léegi dañuy ñëw rek. Mhm. daan la nga tëdd nank ñu ñibbi. Mhm. beneen mooy bu ma bëgg sax écurie boo xamante ni boo ko tuddee nii fi mu toll nii lii nii ay junni yu bari la maar ak amel <laughs> dama bëgg écurie bi. xam nga da daan ànd yéen ñëpp Lac Rose Baara gis na leen yéen yéen ndox gis nañ Rose léegi jeune bi suñu copain instant bi mooy loolu gars yi ñëpp amoon nañ ci moom yaakaar waa ñu dem benn instant Lac Rose bëreetul. Lac Rose ba tey jii nii man may wax ak yow nii mbëri tee làmb ji nii ñoo ko mag fuuf. Mm-hmm. xam nga ñun ñun ñun dafa am benn affaire boo xam daf ñu dal mm-hmm. dañoo ñëw nekk booy ñëpp xam ñu. mais léegi seen côté entraînement gis nañu léegi ci yow doole. non xam nga entraînement ni ngeen doon réunir yéen ñëpp mais kenn ku nekk ci coin la nekk est-ce loolu du am dara lu leen yàkkal tamit. non xam nga nit ñi ñoo naan ci coin mais tey Fatma Dia tey dafa nekkoon ci lii di liggéey ci lii commencé ci am expérience bis bu daan dem dafay teel dem dox ba àgg léegi Fatma Dia am na oto mën na toog ba mu des 15 minutes mu taal oto mu dem. loolu moom. non si da yëg. loolu moom ci kan laa koy déggee. ci ma Dia parce que moom suñu jigéen la yab nañu. xaaral ma ngeen koo yëg koy doxee da ngeen ñun secteur bi ñu dëkk man boog man boog dama paar li nga mun naa ko wax sama bopp jël ci exemple ñeneen mbër yi ma fi xam muy lagrose muy caat muy ñi nga am ñoom laa dëkkal fii ci secteur bi fii. Tafa Boy Bambara et cetera bi su may lim fii laay fanaan ah, ma dëkk ak ñoom gisuma ci kenn ku yëg succès parce que tey da ngay gis ku sol équipement am jaar ni dox dem entraînement amul oto xam na ko xam na ne supporter am luyewul oto di taxawaalu. mais yéen waaw mais xam nga entraînement léegi da ngay bëri coach man da am naa préparateur physique am naa ku ma yor salle musculation am naa ku ma yor boxe te pourtant ñooñu nekkul ñu dañu dañu adopté wu Fass dañu nekk élément wu Fass. ko ñoom dañu nekk ci sama koñ nekk grand di jàppale booy yëpp ku ci mel ni Jules Fomba di jàppale booy yëpp gis ni général mi am naa xam-xam boo xam ne su ma ko defalee moom dina gën a yokk waa Fass dinañ ko gën fonk dina gën a yokk performance am moom mu bàyyi la ñuy def di yeewu di ma ci assister ku ci mel ni Idi dafa ñëw di ma mu nekk champion d'Afrique nekk koo xamante ni Igri Fass moomuñu ko mais xam na moom su ma assister Igri Fass dinañ ma gën a bëgg moom mu may jàppale. loolu la affaire bi demee léegi nag gis nga ñooñu bis bu ñu lay assister yow doo bañ parce que bëgg dem dégg nga Bass Ndoye di wax ni ki ñëw jàppale ko ci Papa Sow muy Père Ba ko dimbali parce que moom bis bis bis bis bis bu doon def cinq bis bu doon def téeméer bis bu amaatee cinq personnes léegi moom cent lay def mais loolu baax na lu ñu leen wax instant ah, man ni ni moo gisee mooy. niñ d'accord rek. lettre bi joxuñu la. lettre bi bien sûr d'accord ah. man moom bañu ma dara lu ma lu ma Fass wax parce que Fass Fass man maa leen ameel ñoom ameel luñ ma Fass ñoo ma tàggat Fass ñoo ma defal lii ma am nii Fass ñoo ma def champion Fass moo tax nit ñi xam ma Fass moo tax ma ma xam ni may jàppee tànku mbër bi Fass moo tax ni may mën a solee mbër bi Fass moo tax ni may mën a mbootee waaleykum salaam Fass moo tax man ni may mën a dundee doomaadama yi Fass ñoo ma yar tamit phase ñoo tax yow nga ñëw fii di ma defal émission <laughs> nga jóge fan sori na nga daj coono ñëw que bi nga ñëwee fekk nga sam sama koñ sax am lu fi xew mais dañ leen di respecté rek ci seen ci ci ci li nga xamante ni jóge ngeen fu sori ñëw fii mën a julli leen dagg comprendre léegi xam nga <laughs> sama père Bécaye <laughs> arrêtez arrêtez ambassade générale. léegi nga ñëw sama koñ am na lu fi xew muy suñu benn suñu suñu nit. ki bokk ci ñun koo xamante ni tey manqué nañu. muy Jeylaani mu baax torop barki démb wallahi azim mu ngi waxtaan ak man naan ma yàlla ku baax la ci li nga nekk ni góorlu li nga doon champion. di ko doon roi di ci di di ci di ci wax wax ju rafet tey nag yàlla moo ko moom moom moo ñu moom ñun ñëpp moo ko jël ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mooy vol suuf si ci kawam mu xaaree ko ajjana mu taxaw ko bu baax ci barki Seydina Muhammad darajay Xaadim Rasul ñu koy ñaanal di wax ne ñun ñëpp loolu lañ préparé pour dem taxaw ci nii man bi ma agsee rek laa ko yëg tombeeg yow it waxoon nga ma émission bi bu yàgg tey nag bi nga agsee mënuma def lu dul defal leen lii parce que lii lañ mën a lente da ngaa jóge fu sori dañ koy def di di di ñaanal ñëpp sama copain yi ku su mel ni Baye Mor vraiment mu ngi may assister mu ngi mu ngi jàpp bu baax frère am Yoro Thiam mu ngi mu ngi mu ngi Espagne Ousmane Lo et ñoom ñëpp Ousmane Diop day sonn ci man. vraiment lu ma bëgg mu taxaw ba ci tey rek am naa affaire moom dama ko bëggoon depuis bërki démb bi ma ko woowee mu ne ma bis boo ma bis boo ñëwee ma defal loxo ba ma demee tey vraiment moo ma woo sax ma ñëw mu defaral ma ko yooyu noonu yëpp li bi ñëw dugg si métti na ci côté bëre juum mais ci côté li may soxla maa ngi koy am ndax samay nit kenn seetaanul Pape Modou mu ngi jàpp ñoom ñëpp a jàpp Matar Mbaye mu jàpp ñoom ñëpp a jàpp et cetera su lim fii laay fanaan. làmb waaw làmb xam nga ni ma koy gisee mooy ñun nañ gën a góorgóorlu ñun mbëri la parce que tey xoolal ren mbëri bëriwuñ defu leen dara kon ñun li ñuy kaas mën nañ ko kaas ne ren du ñu bëre ñun ñëpp. ndax li ñuy kaas di ngeen ñu koy defal ñu defal ñu ko parce que coolu coolu coolu mbër bi la nga ñëw ci biir stade bi mën nga gis promoteur bi mën nga gis reporter bi mën nga gis journaliste yi mën nga gis géew bi mën nga gis saako yi mën nga gis lépp boo gisul mbër bi làmb ju doom ku weddi xool ko ci làmb làmb ñaxi jëriñu ak ak ak waaw ñoom ñëpp ñoo nañ pour seetaan si làmb ji. bi benn mbër bi gaañoo kenn bëriwul. Uh-huh. làmb ma fa. mais kon mbër bi la làmb non làmb yàqu làmb mënul yàqu xamul tax. Uh-huh. làmb dafa bokk si ñun senegal uh-huh. tey pour làmb yàqu foog Sénégal yàqu te kenn ñaanul yàlla Sénégal yàqu. ndax ñu baax loolu lañ fi ñaan. mag ñu baax ñëpp ñaan nañ yàlla. pour làmb ji. di pour Sénégal baax Sénégal jag. te làmb ji mu ngi ci biir Sénégal ñoom gaal gi ñu doon ñaanal valise wu làmb mu ngi ci biir gaal gi bu gaal gi sauvé valise bi day sauvé. kon bu Sénégal sauvé làmb ji sauvé làmb ji li ñu foog ni moom moo koy yàq mooy ñii diriger ñii bëgg nañ ci ñoom ñii bëgguñu ci ñoom ñoom yàgg nañ fi ñoom ñoo war a jël affaire yi ne ah kaay leen yéen samay doom ngeen te doom nag ku ko yor joxe ko ndax tey suñu yaay dañu dañ jël suñu papa yi dañ ñu jëloon yóbbu ñu daara dañu ñu joxe woon suñu yaay yi dañ ñu jëloon yóbbu ñu école dañ ñu suñu yaay dañ ñu jël yóbbu ñu écrifage dañu ñu joxe mais yow ña nga jox nañ sàmm bu baax ñun nag suñu kilifa ci làmb yi ñoom ñoo jëloon jox leen ñoom téye nañ 26 ans boobu ñun ñu ngi nàmp dem nañ ba mënoon suñu bopp ba mën di dox di wax di yëpp nañ ñu joxe nañ jox ñeneen ñooñu tamit bu bis bu ñu téewee ba ñun ñun ñu sax sikkim ñooñu tamit jëlaat joxe bu ñu téewee ba ñu bijjaaw ñu jëlaat joxe affaire bi noonu lay demee. Mm-hmm. mbër ba bien sûr mais xam nga sport boo fi gis ko koy doxal dëgg dëgg dëgg dëgg moom da doon pratiquer affaire bi. di ko téwéri parce que tey bis boo xoolee yeneen sport yi ña ko yor nii te tey coole fi nekk rek mais ñi yor làmb ji ne ñoom yor nañ seen i métier ah. ñoom yor nañ seen i métier di doxal seen i métier seen i métier ñun ñëw ñu fa di ko xajama ñoom ñu ñëw nag ci li nga xamante ni ñun ñi tey bis bu ñu tabaxee suñu kër bis bu ñu yoree suñu oto bu ñu amee suñuy soxna bu ñu amee suñuy doom recette boobu recette bi ñu war a defee lool ñu ngi ko ñu ngi ko bëgg fii pas yaakaar nag jox lépp làmb noonu ñu ngi bëgg yàlla du ñu jox suñu wërsëg mais bëgg nañ tam yenn yi mu jaarale ko foofu parce que ci la ñuy yëngatu. loolu la demee. kon ñoom nañ ñu ko fonkal. toppatoo ñu wax. wax ah, parce que da nga ah. ah. wax dëgg yàlla bu la neexoon tamit mën nañ koo kii mais danga ñëw. waaw mais waaw loolu xam nga àdduna moom moo déroulé nii dafa mën sam sam benn toos dafa mën benn xéwal bu bu ma waroon jox ma jékki-jékki woo ko téléphone am sonné am ku jël ma ne ko waaw alors tons mu ne ma non man la diw tons la léegi la papaam décédé moom mu wax ma loolu man ne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma ne ko waaye yàlla ko yàlla yërëm jékki bi woo ma ma jël ko tons garaawul léegi man bàyyil ma sol sama yére dinaa ñëw ci kii bi mu ne ma mais li ma la war ma ñëwal ma jox la ko ma ne ko non tons fi mu toll nii rek mën na ma non c'est la vie lii maa ko waxoon dama koy def sama papa tamit yàlla moo waxoon tey lay wàcc wàcc na après damay dem ma denc ko ñaan yàlla ñu dem ba am âge nga xoolal kii boobu niveau boobu. ma yokk expérience bi ngeen ñëwee takk affaire bi métti woon mais dama ne benn 30 minutes bi ma leen di jox terewul man ma après ma dem continuer sama lële loolu laa def rek may remercier ñëpp ah di ñaanal mun naa ñaan. Mm-hmm. mun naa tàggatoo. Mm-hmm. ma ñaanal samay samay mama mama Soda di ñaanal Père Ba aussi Père Ba mu nekk sama papa. Père Ba Papa si kooku sama Papa Sow doon bëre. Papa Sow dama ko xalaat sama dina. Ah. pour lan mooy bëri Papa Sow Papa Sow ma jàngal bëri. Papa Sow ma yar wan ma respect nag depuis ñu xamante. Ah, mais xaaral ba ma pare. Ah. Père wuyu ma Papa Sow. Ah. man moo ma yar ci écurie Fass xam tax. bi may ñëwee écurie dama leen fa fekk ñoom. Hmm. Ousa Sow moom mu njëkk a wax ne ma mbërkaay bis buñ la naree wër ndomba nii ngay def duñ la wër ndomba bis buñ jàppee sa tànk nii ngay def doo daanu. papa Ousa Sow de ne ma bis boo bëggee teel ak si fii da ngay xam lii ci làmb xam lii ci làmb xam lii ci làmb ñett yi soo ko xamee par la force da ngay fayeeku Ousa Sow. papa Sow nangu woon bëri ak man nag papa Sow doon ànd ak man papa Sow doon ma conseiller làmb ji ma jël ne avant ma koy jël dama ko woo téléphone. mu ne ma waa làmb ji nii ak nii bii nii ak nii nii nga defee nii ak nii. Hmm. papa Sow sama tons la sama grand la. Hmm. sama frère la ba pare mu wàcce boppam mel ni xale. Hmm. nekkoon ak man di di maanaam àgg ak man ci ay kàddu yoo xamante ni. ku dul sa morom waroo ko wax ak moom. vraiment. père ba sama papa la naan àndal. père ba di ma jàppale. di ma assister léegi moom li mu buggoon defal sama papa man la koy defal. père ba si. yëguma combat bi pousse nañ ko. ndax père ba. kon yow bu la waa Fass dàqoon jàmbaar wrestling ak premier jour bi nga xamante ni sama combat bi ñu ngi koy taxawal te li mu ma yeneen combat yi passé depuis sama début ba tey. Mhm. sama premier jour bi bi nga xamante ni combat bi. jàpp nañ ko. Mhm. ma dem ne ko combat bi waa Papa Sow waxtaan ak Papa Sow ne ko père combat bi taxaw na nii ak nii. Mhm. li mu ma jox fayu ñu ma ko ci làmb ji. père ci xéwal laa ci xaalis. wallaahi azim. li mu ma jox fayu ñu ko ci làmb ji kon kooku. te te te wërsëgu jàmbur ku ciy voyage war a sant borom. vraiment mu yéene ma ko nag su ma demee mu ne ma suba dinaa wax sama doom bi moom mu woo la doom bi dafa may woo mu orange mu ne ma xaalis. ku ne bu la waa Fass jàppoon njàm bu la waa Fass dàqoon njàm arrêté. Fass Fass dañu dàq kenn Fass dañu mën dàq kenn. ah tax mënuñoo dàq kenn. Fass duñu dàqee. Papa Sow ñu ne ko dàq. non non bàyyi li nga wax. Ah. Papa Sow Papa Sow doomu Fass la. Eh. Papa Sow mbëru Fass la. Papa Sow élément wu la. Papa Sow tey kaay ma wala Siteu mii moom muy bëreel ni bu kenn am sikki sàkk faas ñaan ak xam-xam ak yëpp ci Papa Sow la def pour mu daan de wallaahi azim. barke Serigne Saliou Mbacke. kon Papa Boy gis nga Tafa Gueye mi kuy wax ci moom Papa Sow wax ci loo xam ne. Papa Sow rek la bëgg. billaay moom sax noonu la mel moom moom Tafa Gueye man dama ne kii moom suñu papa ji moom vraiment. Mm-hmm. kuy xuloo ak moom sax yaa ko def. Mm-hmm. day fàtte. moo mën a xëy léegi nee nañ dañoo xuloo nuyuwu la suba mu juum wala téléphone <laughs> xol bi dara néew ci wallaahi ma koy nuyu di di nuyu doomam sama sëriñ seexu naa mhm. sama gaayen mhm. sama sëriñ mhm. ak yaayam waaw ah, alhamdulilah man it bëgg naa di gërëm famille Seeneen ñëpp. Mhm. di la gërëm yow di gërëm kii di leen ñaanal seen liggéey bii nii. Mhm. continuer parce que vraiment jàmbaar nga ci. nekk nga koo xamante ne da ngay daj coono ci job bi. Mhm. ndax fi nga jugee ñëw ak bi nga bi nga bëggee émission bi yàgg na ngay daj coono di daj coono di daj coono ba ñëw def ko dëgg dëgër bopp ci sa liggéey. yàlla la yàlla taxaw yàlla suturaal la yàlla may la borom kër bu la attan bu mel ni waajooju nga xamante ni <laughs> alhamdulilah maa ngi ziar non waajooju moom dina la tax moom li ma gis ma euh, wax turam Allah man doo doo kon jël ma wax turam bàyyi ma baal rek yaa may wax sa tànk bi gis <laughs> eh, noonu la deme ah. kon wasalaam may bëggee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoom Maabdou mm-hmm. affaire Zal ñëpp maa ngi leen di gërëm. bu baax a baax a baax sama grand sama joo di wax ni gars yi bu ñu fàtte anniversaire alaaji mbay bi non loolu dafa nar a neex suñu grand la moom it jógee jógee voyage ñëw wàcce boppam di ànd ak ñun di doxandoo ak ñun di defandoo ak ñun ñëpp billaay walaay te loolu dafa neex xam nga nit ki ñëw gisul succès xamul fu mu jógee sax gars yi léegi dañuy jógee Europe bu ñëwee ci yow billaay walaay wa taalaay doo leen xàmmee ak ki ne woon ak ki newoon ci kaso bi ak ki non non ñun ñëppay pare li ñuy lekk même même lekk bi la même waxtaan bi même dund bi yëpp nag baax. dañu dund ak ñoom ndàgg xaaxaat yi ñoom ñëpp ma leen bëggee Cheikh Badji aussi ay dara sama doom ndey. di ko bëggee ah, bu baax a baax muy général bu Fass mu nekk koo xamante suñu nit la suñu xarit la wane na ko parce que mi ngi ci nakar mais tamit wax dëgg yàlla daf ñu ko accordé di ko nuyuwaat bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam moom dafa bokk si ñun parce que daf ñuy encouragé bu baax a baax du ñu suivre mu nekk ku koo xam ne suñ nit la di ko bégee bu baax a baax di ko bégeewaat nag bu baax a baax ah ci mel ni Modou tey moom moo ñu dalal ñoom Pape Modou Mbaye ak ki xamante ne moom mooy Matar suñu copain tey émission bi c'est le ngéwal quoi tey noonu lañ ko defee Père Bécaye Mbaye moom ko bégee bu baax a baax parce que ñoom bu ñëwee gis leen dañuy am contentement parce que su doyen Père Bécaye nag doon koo xamante ni oyof xàmmewuñu ko xoola barke Serigne Touba dañ koy mbalak di waxtaan ak moom da koy fekk biir néegam mhm. musul changé kanam te ñun ay xale la ñoo xamante ni foog ñu ñuy pardonné yu bari mhm. man damay jékki-jékki rek ñëw rek dugg biir néegam mhm. te loolu ñu ngi koy def du du ñu bëri de uh-huh. maa ngi maa ngi nuyu au passage Baye Demba di nuyu sama papa Mbaye Gueye Faye may wax ni dafa am benn anecdote boo xamante ne loolu du ma ko fàtte mukk ci seen papa. may ñaan yàlla suuf sooyof ci kawam. dafa am benn jour kii di bëre tafatin di di bëre ak euh, bombardier yi. ñu tuddee leen drapeau bi. jour boobu ñun waa fas ñu ñu dem fa. bañ demee na man ak Lac Rose dañoo mais ñu ne paa bi ñoo añandoo biir néegam mun nañu kaay leen nii toog leen. billaay walaay lu jafe ah. nga dem di añandoo kilifa bi ñu toog. mën mhm. a añ leen. Mhm. te ngeen lekk ba suur te ngeen fas seen soxla di nekk champion. wallaay azim mhm. l'infatigable Basir Diouf maa ngi lay bëggee bu baax a baax ah jàmm si yow yow suma xarit nga suma frère nga suma lépp nga di la ñaanal jàmm ak salaam di wax gars yi ah di leen bëggewaat bu baax a baax gis ngeen tey émission bi waaw comme que dañoo ñëw pare ni lañ ko tourné rek di bëggewaat ñëpp yéen ñëpp ñi leen di remercier général bu Fass ngeen laajoon joon mi ngi nii toog waxtaan nañu ak moom xam naa incha allah dinañ gën a amaat dinañ gën a amaat euh, beneen temps pour gën a waxtaan ak moom parce que fi ñu ko fekk tax mais Basirou am koo xamante ni dama koy bëggee di ko ziar muy Ouma borom Sénégal direct chéri boobu nekk chéri trompeur ñu koy souhaiter joyeux anniversaire nan ko happy birthday to you dundal cent ans sans ni comprimé ma chérie d'amour yow da ngaa baax gën di yaa xam loo bëgg nag ci journalisme bi yal na la ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed kontaan nañ ci yow Ouma ma chérie d'amour jëf Basirou